rëbës gars yi dañ defa nii bërëbu yàqukaay la maa ngi leen wax ni bis ni ki tey bërëbu defarukaay la aussi nit mën na fa baax nit mën na fa jóge dem topp yàlla bëgg nit jóge fa nag topp yàlla moo tax nit ñu yaakaar ni na fa xale yi nekk na fa mag ñi nekk war nañu ko soppi war nañu ko changer ba ku fa dugal sa dignité doo ko fa génne ku fa génn ak sa ku fa dugal sa xol doo sa xel doo fa fa génne ku fa dugal wér-gu-yaram doo ko fa génne donc améliorer condition yi fa nit ñi nekkee loolu mébét la yéene na bëgg-bëgg la may wax waa si may dégg yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ñaari at ak genn wàll dund nañ ko ci kaf ci jàmm ci réer ci sant yàlla yàlla na ngeen génne yéen tamit di gërëm di sant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

jàngee ko ci li ma bëgg ñu jàngee ko ñëpp ci lii mooy yàlla ku mu teg nattu rek moo xam lu tax mu teg la soo ci leçon yi nga ci mën yu bari leçon ñu amal solo ñu fi nekk di mere ma di ma ma dem liñ fi nekk di xas ma sàmm di xas ma dem loolu weesu na weesu na depuis le vingt neuf c'est fini meeru ñu kenn jàppaluñu kenn dara amuñu xaar ba yàlla kenn ku nekk ñoom lay ñaanal loolu ñu dund yàlla lu mu nga tax na nag li am solo mooy li suñu kanam li suñu kanam mooy suñu réew li xam li suñu kanam mooy suñu engagement may dalal seen xel la ma dund foofu dafa gën a yokk dafa gën a yàkkati dafa gën a dooleel sama engagement pour liggéey ngir suñu réew defaraat defar suñu réew ci fànn boo xam ne sénégalais bu nekk ak sénégalais bu nekk di ngi sa bopp defar réew moo comme ni assise nationale yi nga xam ne mooy suñu base bu gis-gis ak stratégie ak orientation tëgg dire dafa jël sénégalais bi rek nit ki rek doomu aadama rek def ko muy finalité ou politique mais surtout li ci am solo mooy nit chaque Sénégalais et chaque sénégalais yaay mënal di matal di mott di defal sa bopp kenn bañ top ci ci kenn di lëppe lëppee ke yaakaara ke ñaan ñu yéne nit ñi ñu koy def jangala système éducatif yi ñu xoolaat ko formation professionnelle yi ñu xoolaat ko xol nag nan la ñuy doxalee réew mi ba yenn tolof tolof yi yenn jalgat ak yenn yi bañ a jaar ñu créer état

nan lañ koy defee comme ñun li ñu wax nous n'avons pas de la science infuse nous n'avons pas de solution miracle gis nga fii bu kenn yaakaar ne nit kuy cëpp ci asamaan nga ne ñu topp fii réew mi mooy ànd ñun ñëpp ñu ànd jubóo déggoo waxtaan liggéeyal suñu bopp ñun bëgg waaw loolu la jëm Sénégal nag

nit ñi yaakar ni ku politicien wul do dem ku ñu wul do dem nañu gëm yalla gëm suñu bop dañu dem sénégalais bu mel noonu lañu bëgg tabax gis nga li nga xam mom lañu am muy pétrole bi ñi wax ak muy naaj yi ñi am ak lepp lu ñu yalla jox suñu ko gëmé gëm suñu bop xam ne ñun dong war defar Quelle venue tu fais que c'est Daniel Il faut que cette économie extravertie. Parce que les gens qui ont des choses qui Normalement, si dans un horizon de 15 à 20 ans, on acceptait de nous affranchir de l'importation du pétrole et de développer le solaire, jusqu'à nous. Nous allons importer ben en train fexe ba créer ay société yu defar fii loolu loolu moo am solo nañu inversé bu ñu yaakaare ci bitim réew mi ñu yaakaar suñu bopp jëf rek la ni ñuy jëf ni ñuy jëf ni ñuy Thank you.